mi ngi jóge ci benn plante boo xam ne mu ngi fii Sénégal bëri fi gaañ sonal nit yi nit yi ci Casamance en général ba Kédougou Afrique de l'Ouest yëpp sax dafa sonna dafa sonnal nit yi plante boobu da bi ñuy dem di def ay enquête di gëstu ci garab yi lañu gis ne population yi dañuy utiliser garab bi pour pour euh, pour euh, euh, moytu ay ay ay yoo moytu yoo wala moytu yeneen sax euh, ay ay ay insectes yoo xam ne mun na am impact si seen ay récolte donc gis nañu jël garab bi ñu dugal ko laboratoire génnee si benn euh, benn benn benn molécule on va dire benn ferñeent boo xam ne gis nañ ne ferñeent boobu day protéger c'est-à-dire que mun na day dàq yoo day aar doomu aadama yi parce que du loo xam ne dañ koy naan pour faju mais loo xam ne da nga koy def sa yaram la pour pour pour que yooyu bañ la bañ la bañ la màcc